salaamaaleykum mbokk yi baaxoo safoo seetaan seen site euh, TMS TV ñu daal di jàllale benn message rek bu bàyyi ko ci ki nga xamante ni bii moom moo di the king of the euh, nga xamante ni bii moom moo terrassé le roi haha borom cent mille combats sans défaite. kooku moo terrassé Lëg Daawu Mbay moo terrassé Bar Mbose bu Kaolack. moom moo terrassé Bul Dokum di buuri Junney Mbàkke moom moo terrassé Ahmada. Euh, yaakaar naa ni kenn dootu ko laajte mu di kan Thierno Moulay Sow kooku moo jàpp euh, premier euh, ambassadeur Iblis kooku moo jàpp deuxième ambassade Iblis kooku moo jàpp troisième ambassade Iblis kooku moo jàpp quatrième ambassade Iblis yaakaar naa ni kenn dootul laajte Serigne Thierno Moulay Sow xalifa général kullu médecine traditionnelle du monde Serigne Thierno Moulay Sow nee na léegi programme bi dafa changé mu dina liggéey euh, samedi euh, dimanche lundi mardi mu ni waaye képp koo xamante ni da nga am rendez garab na nga ñëw mardi ndax kat léegi mardi lay joxe li nga xam ni ñi am rendez garab mardi la leen di jox ay garab waaye yemul foofu nee na tamit mercredi jeudi vendredi nee na kat euh, mercredi incha allah dina jël ay appel ndax xam na ni àdduna bépp ko soxla ñépp koy woo ndax kat nit ñi jinne yi dañ leen sonal lool te kat nee na bu sañoon kenn du feebar waaye nag yàlla moo bind feebar ak wér moo tax mu leen di ñaanal rek képp ku feebar jinne sonal la yàlla na la ko yàlla eh, teggil ci jàmm ak salaam dellu di ñaanal eh, suñu réew senegal suñu gaal yàlla na fi yàlla def naa tànge ak barke ak yiiw waaye tamit mu nit ki képp koo xamante ni bii bëgg nga faju bañ ku la filmer ba tey mën nga contacter service commercial bi euh, su boobaa dinañ la faj te kenn du la filmer moo xam ngay kilifa diine ak kilifa aada walla ndombal tànk boo mën a yor ak koo mën a doon ak borom daraja boo mën a doon euh, Serigne na Moulay Sow nee na bu fekkee da nga bëgg faju bañ ku la filmer mën nga daadi woote ci numéro yii mën nga woote ci

dinañ la teg ci yoon ñu faj la te kenn du la filmer vendredi incha allah mu fesee ne def li nga xam ni moo di ay sharax ak ay wàcce ay kaamil incha allah waaye mu ni yamul foofu ndax kat dafa war di saafonte ak jinne yi di nemmakonte ak jinne yi ndax kat moom mooy seen sëriñ te moo leen téye te ni ku nit ñi soxla noonu la ko jinne yi di soxlaa moo tax léegi mu jël ay jours yoo xam ni spécial pour jinne yi kese la mu nekk mercredi jeudi ak vendredi waaye képp koo xam ne da ko bëgg woo téléphone tamit mën nga profité woo ko ci téléphone su boobaa di nga déggoo ak moom waaye nee na mi ngi leen di jéggalu ñëpp ñi nga xam ni dañuy woo ci téléphone eh, te mënuñu ko jot. képp koo xamante ni bii da nga bëgg a faju eh, te bañ ko la filmer mën nga woote ci numéro yooyu. Eh, kooku mooy the king of the king. xalifa général kullu médecine traditionnelle. Euh, du monde euh, Serigne Thierno Moulay Sow euh, kooku mooy kan kooku mooy setu Sunjata Kayta kooku mooy setu Yoro Tengala Koli Tengala Nima Tengala Labba Ardo Diering the king of the